dafa nekk structure boo xam ne dafay am lu ñu wax euh, euh, euh, chambre de jugement am lu ñu wax chambre d'appel am lu ñu wax collège de juges d'instruction am lu ñu wax parquet national financier ak compétence nationale loolu may ci profiter également di leeral askan mi di dégg na am na ñoo xam ne dañ naan CREI dañ ko rey vive le parquet national financier maanaam CREI bu ñu ko reyee maanaam ci wàllu structure nañ ko ray mais ci wàllu compétence en tant que tel parce que CREI compétence am moo doon corruption boo demee ci article projet en tout projet texte ma jot ci article six cent soixante dix sept point quatre vingt lay wax ne lépp loo xam ne corruption la jóge ci dossiers yi nga xam ne moom la CENTIF euh, euh, euh, di liggéeyee wala OFNAC di ko liggéeyee nga wàcc suuf également ci article boobu noonu nga dem le point six da nga fay gis le délit d'enrichissement illicite ñaari délit yi moom la moom la enrichissement cour de répression d'enrichissement illicite amoon compétence tey jii compétence boobu ñu jël ko jébbal ko pôle judiciaire financière